jëlee nañ ci abi hurayrata yàll na ko yàlla gërëm niki yonentab yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama nee na ab jullit bu gëm yàlla bu dee jàpp ba agsi ci raxas xar kanamam nee na mboolem ay ñaawteef yi doon xool ci ay bëtam day wàcc ànd ak ndox mam doon raxase xar kanam ga bu agsee ba ci raxas ay loxo mboolem bàkkaar yi defoon ci ay loxoom day wàcc ànd ak ndox mam doon raxase loxoom yooya ba jeex takk bu agsee ci raxas ay tànkam mboolem bàkkaar yu mu doon ndox ci ay tànkam day wàcc ànd ak ndox mam doon raxase ay tànkam naka noonu lay dem ba noppi ca njàpp la fekk set ne wecc ci ay bàkkaar xaddis bi muslim moo ko soloo